seto ngi li ngir xam sa bop ba mujju raw ndax waju rere xolam xaran na ba jall faw ko xamul xolam rere xelam jeelam du ndaw ruham du xippi batam du fet ba mukk yow ko sa bop réer do xam borom bi la tay ndon dox du dox bul nax sa bop di wër ngelaw rahim ndok ji buñu buuru buur yi rabbil izzati mi tax wal jabarut ñun ñii di dox ak wax di julli ak a ci li yonente bi wax julli leen ci man lu bari wax ji ak a sax di sant nag ak sargal kilifa diine yi tax diine islaam ci senegaal ji tey ji doon sax ñoo leen ci nuyu bu baax te di leen ziar di ñaanal jéggal ak yërmande ak gërëm suñu borom subhanahu wa taala dellu siwaat ak yéen seen émission xam sa bopp ngeen ci ànd ak seen mbokk Sayfullahi Gaye ci biir ëttu soxna yu baax yi ñu fàttali ne jamono yi jàll ci waxtaan yi ñooy doon waxtaane ah, noonu yi nga xam ne ñooy gàllankoor doomu aadama ci jaamu yàlla ak ci tuub ba tey nag ñu nekk ci xam sa bopp ñu bëgg a waxtaane islaam maanaam xam diine ji ñu nekk muy diine islaam mooy jën diine islaam mooy diine ji nga xam ne moom la suñu boroom gërëm moom la tànn te mooy diine dëgg-dëgg diine suñu boroom ndax suñu boroom moo ne inna diina indallahi l islaam maanaam diine ca yàlla mooy islaam di wax ne tamit képp koo xam ne tànn nga jeneen diine juddu islaam kenn du ko ko nangul te ëllëg yowmal xiyaam maanaam ca ñu perte ña lay bokk ñu xam ne diine islaam mooy diine ji mujj nga xam ne nii suñu boroom wàcc ko ci yonante bi mujj muy seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa ak diine yahud moo fi nekkoon di ràpp suñu boroom doole ko ak diine nasaraan waaye mu demaat bay rapide suñu borom doolee ko ak diine islaam mooy diine ji nga xam ne mooy ci la alquran wàcc ñu xam ne diine islaam mooy diine ji mujj nga xam ne ni fu borom wàcc ko ci yonante bi mujj muy seydina muhammad salallahu taala alayhi wa kon képp ko fi sàkku jeneen jeneen diine amal ne fekkee ne suñu borom du ko nangu tey ëllëg ci ñi perte rek ngay bokk alfiyasu billah tey nag uh, diine islaam al islaam suñ ko waxee maanaam mooy jébbalu la islaam mooy jébbalu jébbalu nag mooy nga jébbal sa borom subhaanahu wa taala sa xol booba mooy laa ilaha illallah maanaam sa xol doo fa gëm la nga fay wéetal kenn ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala boobaa ci la maanaam arkaan bu njëkk ci islam maanaam ponk islam bi bu nekkee juróom te ba si ne ashadu an laa ilaha illallah maanaam seede ne yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ko dul moom maanaam sa ga nga jébbal sa borom moo xam ne doo ci gëm wala nga ci euh, jàpp kenn koo xam ne ni maanaam moom nga jàpp yàlla ko dul suñu borom subhanahu wa taala gëm tamit yonent bi ndax yonent bi sallallahu mooy ndaw li nga xam ne moom la suñu borom jaarale diine ji di islaam te suñu ay jikkoom ñu war koo roy waaye yemut ci rafetlu ko rek waaye daf ñoo na lépp lu leen yonent bi andil di ko jëf waaye lépp lu mu leen tereet na ngeen ko bàyyi te xam ne yonent bi moom boobaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa moom. maanaam du wax dara ci bànneexam wala mu koy def rek ngir bànneexu bokkanam déedéet moom koy sunu boroom moo koy wax yu moo xam mu jaar ko ci ko ci hadisu kursi yi wala mu jaarale ko ci ndawam lii di sayidina jibril alayhi salaatu wasalaam su ko defee tamit noonu lañuy jébbalee suñu borom subhaanahu wa taala suñuy cër maanaam si jëf maanaam ak a ngir jëm suñu borom subhaanahu wa taala rek tax nga xam ne dootoo jëfati ci ndéggtal wala ngay jëf ci ngistal say yëngu say dal yépp rek day day ci jublu maanaam topp ndigalu suñu borom subhaanahu dañ ciy jublu jëf ndigal looy bàyyi dañ ciy jublu moytu tere yi suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ne maanaam ci la yeneen arkaan islam yépp dikk dikk su ko julli googu ngay julli muy ay jëf natt asak ak ngay def muy ay jëf aji mak ak ngay def muy ay jëf lool yépp rek ay jëf la yoo xam ne nii jébbal nga sa cër say cër suñu borom subhanahu wa taala ba lum la digal nga def ba lum la tere nga bàyyi ci biir nag jébbal sa borom sa xol boobaa kon bépp bokkaale daf cee génn day loolu yépp bokkaale day génn sa xol ndax yow kat yaa wax ne yàlla rek ay yàlla te kenn kenn du yàlla ko du moom nga xam na sax léegi-léegi maanaam nit ñi dañuy juum ci fii maanaam laa ilaha illallah ndax ñenn ñi dañu koy fiiree amul benn buur bu yàlla fekk na axakay ay buur am nañ kay ndax suñu borom mooy moye nguur ku ko soob di xañ nguur ku ko soob kon képp kum maye nguur rek nga am nguur ndax soo xoolee euh, Seydina Suleymaan suñu borom mayoon nguur am na ay nit jiitu woon it suñu borom may na leen nguur kon ba léegi sa daanaka suñu borom mi ngi maye nguur ndax président yi ñëpp rek xañ na tur soppeeku rek waaye ak nguur lay doon su ko defee ñenn ñi tamit seen njuumte di ko wax ne dara amut lu dul la nga xam ne ca firiwo rek maanaam lañ ca bokkaale woon bu yàgg daal bëgg ne maanaam lépp lu am maanaam ci ci ci maanaam. am mbir la ci yàlla li fi nekk àdduna bi yépp li fi nekk soo ko boolee ay yàlla yu daggantikoo la nga boole ko mu doon jénn jëmm doon yàlla nga xam ne dañuy jël jëmmi nit ñi seen bopp ak garab yi ak xeere ko yëpp rek daf leen ab cër ci yàlla nga xam ne dangay dajaloo doon ab yàlla waaw subhaanallahi amma yushrikuun maa ngi tudd suñu borom subhaanahu wa maa ngi sàbbaal suñu borom subhaanahu ci fépp wala bépp kàddu goo xam ne da bokkaale su ko defee ñooñu tamit ndeysaan dugg ci ak réer gu gu xóot xóot sax ndax suñu jëwee rek euh, bëgg a firee ne maanaam dara amul dul yàlla euh, la la doon gën maanaam la doon gën tey dëggantaan mooy ñu xam ne lépp lu am suñu borom moo ko bind maanaam ci coobare suñu borom ak nammeelam la amee dara amul lu ne suñu borom moo ko namm dara amul lu ne suñu borom moo ko moo ko amal bu boobaa mooy tawxiid ju sell ju set. du raxul daray bokkaale waaye bañ bëggee jël lépp rek def ko ab cet yàlla la bokkaale bu rëy rëy am suñu boroom subhaanahu wa taala moo fi nekkoon di yàlla wa dara su soogutoon moom rekk di yàlla mu toog ba mu neex ko mu bindaat lépp loo xam ne mi ngi ci kaw suuf ak ci asamaan yi ak ci yeneen planète yi nga xam ne sax xamuñu ko ni lay toogaatee ba jenn jamono mu raaf lépp des fi di yàlla suñu borom subhanahu a taala kon yàlla rek ay yàlla te kenn du yàlla ku moom malaaka yi duñu yàlla nit ñi duñu yàlla jinne it duñu yàlla ndax nit ñi wax dëgg jox nañ jinne yi ab cër lool te wormaa leen te ragal leen dem sax daanaka di leen jox place bu yàlla ndax xam nga ne boo demee ba sa borom subhanahu wa taala wàcc ndoxum mi mu taw ci suuf si mu saxal gàncax gu macha allah nga dem ba balanka lekk maanaam da ngaa ji rab yi ba pare maanaam da ngay tàgg rab yi ba pare bañ jox la ci ndigal nga dog caa lekk sa borom mi ko saxal nag bu teewoon ndoxam nag wala sax ci coobareem mu taw ba pare maanaam tam bañ a sax ndax suñu borom da koy def ngir wan leen rek ne maanaam du dox mi man la ndox yeeg yooyu yëpp sa asbaab la waaye dëgg-dëgg mbir mi suñu borom la. suñu borom nag day sabab day wane ay asbaab ci kaw day tëral ay mbiram wane ay asbaab ci kaw ngir nit ñi man ci sabab lu suñu borom ñi nga xam ne ni wax dëgg mën a xéewale loolu moom nga war a sant lekk ko jeexale ko ci jaamu sa boroom ak sant ko waaye déedéet kay du ay rab ngay dem di tàgg ngir nga mën caa lekk mhm. ñu bàyyi ci xel bu baax nañu delloo mbir yi suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ko moom su dogal wàccee ci ñun ñu xam ne yàlla la soob ndax kat bokk na ci imaan mooy nga gëm dogal suñu borom bi bu neex bi ak bu naqari ba ak suñu sax moom wax nañu ko ci alxuraan ne suñu borom leen nattu ci moo xam muy alal ji wàññeeku wala njaboot wala xéewal wala yooyu yëpp rek wala meññeet yooyu yëpp rek ndeysaan ñi nga gis ñu am ay lakk euh, seeni bagage ci lakk wala am mbokk yu wàññeeku ñun ñëpp rek dagg suñu borom teel nañu ko wax ne moom moo ñu ko nattoo su ko defee ñu xam ne moom rek moom moom sañ-sañ a ñu ko nee ngi natt ñu ba xam dañu bokk ci way muñ ñi wala waaw waaw kay ñu ñu muñ rek xam ne yàlla rek mooy yàlla te seen du yàlla ko dut moom keneen mënuñoo tekk ndax nit ñëpp sax bu ñu woon bëgg laa lor neexul sa borom kenn du la lor waaye suñ àndoon nit bëgg laa fegal aw lor te neexul sa borom nit mënoo fexe ba mucc ci mhm. kon yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ko def moom dañu ko jébbal suñu xol ci tawxiid du mat sëkk gëm ko ci wéetal ko ci waaye jébbal ko suñu cër ci bi ñu digalee ñu def duñu tere yu baax nga xam ne lépp lu ñu bëgg maa ñu koy bañ dañu koy bañ ci jëmm suñu borom subhaanahu wa taala ilaha illallah googu suñu ko waxee tamit daa war a nekk lu ñu dund kenn yàlla ci lépp su neexee ñu xam ne yàlla ci coobareem la ko defee waaye su metteet ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko defee ci coobareem ndax kat suñu borom moom dogal yi waaw ko delloo suñu borom ko delloo dogal yi mu moom li nga xam dëggantaan moo moom jëf ak bàyyi maanaam mu neex ko mu def mu soppam mu gindi ko mu dendi mu dindi ko nañ ko delloo loolu waaw loolu ak ak yàlla la nañ ko delloo te nangul ko ko wax dëgg yàlla mhm. boo defee xam naa ne yemale foofu kàddu gi di fàttali ne ñoo doon waxtaane lépp rek ci xam sa bopp di wax ne ma arat naa illaa islaahan mastatax naa wa ma tawfiqi illaa billah bëggal borom bi la sàkk bul ko wutal morom